maanaam moom mu indi la ay ñol-ñol dooree ko ci Karim Wade ba ci xalifa Sall yéenekaay gi nee na Macky képp koo xam ne gis na la nga nekk ci ab parti politique bëgg ko faa andil ay jafe-jafe dina la teg pression fexe la ba indi la ci wetam ndax mbooleem ñi nga xam ne ay cadre lañ woon yu am solo nekkoon ci parti bii di PDS ak réew mi bu Idrissa sekk ñooñu ñëpp Macky Sall wagga waggal na leen ba indi leen ci wetam ñenn ñi da leen di tiital jël seeni dossiers yoo xam ne ma nga kiri teg ci taabal ji Macky Sall amul lenn lu rafet loo xam ne ma ngi koy politiquer moom lépp lu mu man rek ngir andi la ci wetam loole lay def te loole nag ci boppam démocratie nanguwu ko ndax pour ñu am démocratie bu baax il faut ñu am ab opposition boo xam ne bu dëgër këcc lay doon te nag li nga xam ne moom la ñu nemmee ci réew mi Macky Sall ci boppam mu bëggul ab opposition ndax Macky nag am na loo xam ne war na ko moytu jël li nga xam ne mooy moyen nguur gi di ko xeexee ay opposant jël li nga xam ne mooy ay institution di ko xeexee ay opposant ba pare weñ loxo xoj li nga xam ne mooy justice bi ngir ñu dal ci kaw ay opposant loolee ci boppam lu jara moytu Sall ci boppam bu ñu waxantee dëgg moo war a waxtaan ak njëgënaay

a def ab débat national boo xam ne danañu ko daal di waxtaanee yéen a kaay gii di la témoin nee muy APR muy benn bokk yaakaar ñoom daal du ñu mos a ci promotion bi nga xam ne moom a lay bundoxataale njiitul Pastef di Ousmane Sonko loolee daf koy gën a may doole ndax 2016 Sonko bi ñu ko rajee jàpp ne day néew doole boobee la Ousmane Sonko gën a bëri doole bi mujj nag mooy Antoine Félix Diome mii nga xam ne génn ab communiqué communiqué bu Antoine a may doole ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko te Macky nag war naa xam ne lu mu bund xatal Ousmane Sonko day tax askan wi gën koo bëgg professeur Moussa Diaw moom nag daal xëy wax ne débat bii nga xam ne maanaam njariñ li bëriwul Macky Sall waroon na ko mën a moytu Ousmane Sonko ci journal bii de la témoigner ñoom daal nee nañu duñu nangu benn yoon ku leen di distraire nekk fi di caaxaan ñoom nekkuñu ci loolu yéenekaay gi di enquête nee na Félix Antoine Diome ma ngi ci wàllum politique yéenekaay gi di Dakar Times nee na lu jëm ci wàllum lànk ba ñu déposé compte financier parti politique yépp dañu koy violé yéene kaay gi du l'observateur nee na Antoine Félix Diome cas suspect la ngir nag topp traqué ñi nga xam ne ñooy ay opposant Macky ndax ndax Félix Antoine Diome ci Ousmane Sonko la jëm ñi nga xam ne ñoo xam daal du waxantu en tout cas xeex boo xam ne sumb ko daf koy bëgg a gagné te mbir mi nga xam ne xew na ci mbiri Ousmane Sonko nañu xaar ba pënd bi wuree yéen a kaay gi nag ñu xëy fekk fa ñi nga xam ne ñooy opposition bi nee nag jamono ji lenn kese moo jot ngir dajaloo def ab dank song ki nga xam ne mooy Félix Antoine Diome Toussaint Manga ci l'Observateur nee na moom amul benn confiance ci Antoine Félix Diome te nag mën naa dugal Sénégal ci ay giraawaali ci ay njombeek ci ay musiba bu kumba ci ay tooxi doona yoo xam ne kenn du xam fan la ñu koy lijjanti te mbooleem njombe yi nga xam ne am na ci wàllum politique ci Sénégal rawatina lu jëm ci Karim Wade Khalifa Sall loxob Antoine Félix Diome ma nga ca biir kon jamono ji kenn amul confiance ci mooma Moussa Taye bu taxawu Ndakaaru nee na yi nga xam ne moom lañ teg ci réew mi yoonam nekku si li nga xam ne moom la ko Macky Sall yi sant loolee rek lay jëfee Serigne Cheikh Thioro Mbacké bokk ci parti Pastef dëkk Touba nee na ki nga xam ne mooy Félix Antoine Diome mercenaire u Macky Sall la taxawu Ndakaaru ñoom jamono ji ñoo ngi taxawu Khalifa Sall yéen kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Ibrahima Sène bu PIT nee na xaalis bi nga xam ne waa Pastef dajale nañ ko war nañu ko lijjanti ndax suspect am nañ ñu si njort lu ñaaw ñu conseil économique social environnemental nee na am Mimi Touré yoo xam ne seeni salaire ba léegi ne jotuñu si dañu ko daal di bloqué yéen gii di réew mi quotidien xëy na def ab dossier bu màkk ci jigéen ñi nga xam ne seen yaakaar dafay faral di tas ndax jigéen ñi dafa am ay xale yu góor yoo xam ne ñoo leen di gëmloo ne leen dañu leen di takk léeg-léeg sax xale yu góor yi dañuy dem ba waxtaan ak seenu njaboot maanaam seenu famille léeg-léeg sax danañu waxtaan ci may gu njëkk gi xale yu jigéen yi toog di am yaakaar ñu dem sa cëppaandaw ñu ne leen naxambaay jekk-jekk sax woo leen téléphone ne leen suba damay marié ak yu si aju yu jigéen yi ñoo ngi nettali ci i kaay gii di réew mi quotidien jafe jafeñ-jafeñ yi nga xam ne ak yaakaar bu tas bi nga xam ne yenn ci góor yi ñoo ngi leen koy teg yéen i kaay gi de Stades nee na Edouard Mendy jamono ji góolub Chelsea bi ma ngi si ay jafe ndax bi muy doog di ñëw Chelsea mbir mi neexoon na lool ci moom waaye nag jamono ji mbir mi dafa soppaliku lu doy waar ci moom ndax ma ngi encaissé ay but dak yéen i kaay gi di sunu làmb xëy na ci mbër yi nga xam ne ñoo dëkk Pikine nee na Eumeu Sène ñàkk na roi des arènes Boy Niang demoon na ba yéeg far ñu gàllankoor ko Ama Baldé ñaari baaraam moo tere mu nekk roi des arènes société nationale d'électricité bu